Ounthia moo ñëwoon ginnaaw Ounthia door na léegi Boy Vocal reculé ñoo ngi noonu ci digg géew wi Ounthia Boy Vocal Boy Vocal door na léegi <laughs> Boy Vocal door na léegi <laughs> waaw baax na jàppante Ounthia boîte vocale Ounthia moo ñu féete à droite boîte vocale moo ñu féete à gauche eh boîte vocale doonu dooraat eh, boîte vocale Ounthia Ounthia boîte vocale jàppante nañu eh lu mu koy def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 Kouthia boîte vocale Kouthia boîte vocale daa mel ni daa bëgg a tenter prise est que Kouthia dina ko ca bàyyi oh! sant <laughs> Kouthia boîte vocale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 Boy Vocal mi ndaanaan la lu mu koy def da koy daan waaw waaw da Vocal dugal na ca Boy Vocal mu ne ko vous avez éteint la Boy Vocal laissez votre message après la sonorisation Boy Vocal daan na ko xoox def jël ko waaw waaw Vocal ak moom ku nekk ak say feem daan na ca daan na ko jël bu rëy. Oh. Uja daanootina Uja daanootina